dañoo dëkk ci kër yi nga xamante ne mooy kër yu parewul yi nekk ay néew doole set setal bi ñuy woote ñun ñoo ci jiitu ndax ñun ñoo fekk mbalit mi kenn ñemewu fee jaar guddi wala bëccëg ñu dindi mbalit mi ñëw dëkk ak suñuy njaboot kon président li mu woote ñun ñoo ko ci jiitu nag ay new doole yoo xamante ne nag sa suñu fenn wéeruwuñu fenn dul dul moom mi nga xamante ne moo ñu bokk jabootee ñu dëkk ci kër yi ñu ne tey nag dañuy génnee néew doole yooyu jël kër yi jaay ko dugal ko ci seeni poos ñun nag moom la ñuy woo ndax moom daf ñuy génnee sànni ñu ci mbedd mi jël kër yi jox ko ñuy jaay wala nan lay def ak ñun ñu koy woo comme moom social moo ko tax a jóg ma defee ne booy dimbale ni ci social ki néew doole moo tax mais ki am doole kan dimbalewu ko ñu ngi koy woo nag ku gis suñu dëkkuwaay yi nga xam ne ay néew doole lañu moom la ñu yaakaar ñu ngi ci ginnaawam ñun nag moom rek la ñuy déglu kenn nag wu ñu ñi fi nekk jaxaay di wax yëpp ay sàcc lañ jël nañ kër jaxaay yi jaay ba mu jeex monsieur le président ñu ngi lay woo kaay audité jaxaay jaxaay ñuy jël kër yi di ko jaay ñi koy jaay di jaay di dunde di luye di fayu di dun dëkkal seeni xarit di takki jabar di leen dëkkal di jël seeni doom di leen dëkkal nun amuñu dara amuñu ko nu defal loolu nu yër ba xam ne nun ñii comme que social la te Macky Sall la nu ko diggaaleel nun Macky rekk la nu ñëw fekk kër yi def ay mbalit ay sën lu nekk na ci nu di ko bale ñii feebar ñii di bale léegi bi nu balee ba dëkk ñu daal di ñëw dugg ci biir kër yi am na ñoo xam ne nii dañ daan ñëw di la wax naa la jox ma xaalis ma wutal la kayitu kër wala jox ma xaalis ma ma ma ma wutal la euh, bagsi am na ci ñoo xam ne ñii boo ko dee wàññi ci koñ boo dugg doo fa wàññi fukki nit yoo xam ne am nañu kayitu kër bu légal kayiti sàcc lañu leen defaral jox leen léegi biñ defaree kayiti sàcc yooyu jox leen ba pare ñu wëlbatiku ne ñi nga xam ne dañoo bale dugg bokkuñu ci social bi nun ñii moo mën kër yi nu fay sunu xaalis nun lañu ñu jox kër yi ñoom bokkuñu ci doonuñu ci dara di dugg ci mbedd yi naa ko ñime na nga daw nanga tabax ku ragal na nga daw yi ngi ñëw dal ci seen kaw kon nag Macky moomu la ñuy xaar fii nous sommes frappés par les difficultés de la vie vous voyez ces vieilles dames ces vieux messieurs qui sont là qui ont été expulsés dans leur maison par des par des huissiers de justice par des propriétaires de maisons nous sommes venus en cherchant le loyer on est venu à Djaha, on a trouvé des maisons abandonnées Dès qu'on a rendu le milieu propre, c'est en ce moment-là que les autres sont venus, les délinquants de Djahaï, chez Monsieur, qui se disent responsables des collectifs des gens qui habitaient dans l'eau, en sachant que vraiment Djahaï a été fini. Tous les sinistrés venant de, de l'eau ont reçu leur maison. Maintenant, leur plan, c'est quoi Ils viennent nous trouver chez nous en nous proposant de l'argent. On vient, exemple, chez moi, on me dit, Monsieur Diamé, tu donnes 300 000, on te donne la maison. Avec des papiers, des faux papiers. C'est ça que nous, on a refusé. Ils ont essayé de vous corrompre. Corrompre, la, la corruption. On a refusé, notre collectif, on a refusé, on a sensibilisé tout le monde. Que personne n'accepte d'apprendre l'argent de ces gens-là. Parce que nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais diminués. C'est des cas sociaux. Ces maisons sont faites pour des cas sociaux. Monsieur le, monsieur, euh, ministre de l'Habitat, la première dame, nous le demandons. Nous le demandons de venir au secours de ces, ces, ces gens-là qui sont derrière moi, qui souffrent tous les jours